la ci Sénégal loolu kay ñëpp xam nañ ko ñi am xel yépp xam nañ ko waaw ñi nga xamante ni seen xel a ngi des ak ñoom yëpp xam nañ ne lii moom ku sa bakkan taxul ngay wax ku sa poste taxul ngay wax ku say intérêt taxul ngay wax xam nga ne lii gënul ci réew bi waaw ndax jàpp naa ne ni ma ko waxee keroog assemblée nationale yokku mandat président mooy yokku jafe-jafe askan wi yokk mandat président mooy yokku. ñuy retrait des licences euh, des médias yokku euh, mandat président de la république mooy yokk coono baykat yi mooy yokku coono sàmmkat yi mooy yokku tamit mbënn mi yaa ngi dégg mooy yokk kii bi laa bëgg a wax mbëkk mi ba nga xamante ni egg na ci ay proportions yu démesurées ñun li ñu ñun li ñu pare pour dem fi mu ne mooy les élections du 25 février 2024 pare woon nañ lépp li nga xamante ni moo ñu ajowoo ñoo ngi continuer di dox di wax ak sénégalais yi jàpp nañ ne dinañ dellu si à la raison def élection yi le vingt cinq février deux mille vingt quatre